amateurs yi rawatina ñiy xaar combat Modou Lo ak Ama balde ba tey jile rek li ñu doon xaar duñ ko mujjee gis ndax conférence de presse bi nga xamante ni moom li ñu ko Nicolaï defoon na ko ak ñaari mbër yëpp bi ci njëkk ak Modou Lo deuxièmement ak Ama balde doomu Pikine ñoom ñaar ñëpp ñëwoon nañu ci conférence de presse boobu moom Luc Nicolaï ba ñëpp doon wax ne na ñëw daal di dikk leeral ci combat bii nga xamante ni ñu bëri ñu ngi ciy xel ñaar rawatina face à yi nga xam ni munta am waaye Luc Nicolaï ba mu ñëwee ci conférence de presse boobu dalaloon na xelu amateur yëpp rawatina Sénégal ak diaspora bi ne face à face dana am ci 22 janvier bi ñuy dëgmal moom sax Luc nee na woon ci nii mbaa ci ne muy naaj te muy tàng ñaari mbër yëpp danañu ñëw jàkkaarloo muy face à bi nga xamante ni dañ ko naroon def le 22 janvier waaye rek lii mujjee am face à boobu. fourage daal di xëddeem dootul amati lu waral lu ni mel on se pose la question toujours ndaxte face à face bi nga xamante ni ñu ngi koy bëgg saa su nekk laata rek euh, kii di Luc Nicolaï di teew doon nañ ko programme lu yëpp mu mujjee dem géej waaye Luc Nicolaï ñëw na daral xelu askan bi ak assurance mujjee na waat. tàbbi géej kon Modou Lo Ama Baldé am na la ca nekk de a ngi ci de waaye daal li ñu mën a wax rek mooy que ne face à face yi nga xamante ni mënta am mukk est-ce que ba tey mën nañ dundee yaakaar ne bile combat dina am saa su nekk rek mu am lu koy gàllankoor moonte sax kii di roi des arènes adversaire Ama Baldé doomu Pikine dem na France waajal li nga xamante ni moom mooy combat am digganteeg balde lu raar Modou Lo di dem France ñuy am euh, laaj ba Modou Lo ba dem ca France euh, day préparer kii di Ama Baldé am déet ndaxte combat boobu daal fi mu nekk nii point d'interrogation xel daal ma ngi cay teey ba tey jile.